jëlal borom kagul bi ma nga yor benn leket am na lu muy saraxe am na lu nekk ca leket am na lu nekk ca leket ba waaw waaw tout noir la solo cey Mansour làmb moo doy waar ma ngay wax ñu ubbil ko butéel ba sotti ndox ma ca leket ba mu jaxase Mansour jëlal ma borom kagul bi xoolal ma lii kii kenn mënu koo identifier kii kenn mënul xam kan la fi mu toll nii xorom la yor wala ceeb wala suukar ma wis cey loolu cey lamb borom kagul baa nga noona cey bii bis lamb da koy bind le 15 janvier 2023 ma ngay wis xorom sa ma ngay wis di sànni gauche ak waaw waaw cey loolu waaw waaw waaw ma nga noona ma ngay wis di wër Mansour borom kagul baa nga noona ñi ngi fii buntu kër Ada déggal loolu ey waaw Mansour borom kagul baa ngi noonu mu ngi wis rek di wër leget la yor def ci xorom ba mu fees waaw waaw lu weex lay feeñ te yére ba xaatim lan ko def cëy li cëy li cëy làmb ma ngay delluwaat ci biir Mansour ma ngay delluwaat oh. ay cëy ñi ngi ak euh, le capot des capots Abba ñi ngi lay ziar. Abba maa lay fay bu baax naka naka tool yi. sant Serigne Touba gis na ni nga sonnee ci combat bi. waaw dañ naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom tubaa jërëjëfe si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalaamaa si Ahmadou Kara Mbacké noo leen di maa leen ziar di leen dalal jàmm wér bi lan moo ko waral non ah. fay bor waaw ni ku nekk lam la lebal bisam la am da ñaw ñëw taxaw ko xam nga muy sunu frère di sunu mbokk taalibe di sunu lépp moo waral tey teewaay bi dama gis depuis face à face bi ba ci open press bi ba tey du doo toog waaw mais moom moo ma ji loolu moo ko ji Ndakaaru boog moo waral mu demee aada kenn la si ñun dañuy ñaan saa borom nag bi yor ndam tey motali yàlla ñu suñu borom may ndam lu gaaw se seetlu guyu waaw ñu ngi laal ñu ngi ñaanal l'ensemble zone Dakar bi yëpp ñu ñaanal seen doom yàlla may ko ndam. en tant que responsable supporter yi nga jiite supporter yi ñëpp di woote non à la violence. non jiite ma supporter sax mais boo gisee rey mel ni maa ngi jiite loolu ndax parce que noonu laa mel noonu lañ ma yore man damay bëgg xam nga ñun ñëpp ñu nekk si jàmm xam nga ay jeunes lañ tamit àdduna jeexul dara yàggul. xam nga làmb la nañ ñëw si fair play xam nga saa borom mi yor ndam yàlla nañ ko saa borom may supporter Grand Yoff supporter Ndakaaru bi lépp benn la xam nga di leen jaajëfal yéen gis nañ seen taxawaay boobu léegi open presse bi signature bi lépp gis nañ seen taxawaay di leen ñaanal seen seen bi waa li ngeen ko bëgg rek yàlla na yàlla ngeen am lu ko fooxa waaw bilaay wala taxawaay bi tamit franchement bay baal jaajëf mbër jaajëf Aïcha mi ngi noonu ngi kaalawu am ko jiitu yor benn buteelu ndox suur ndeysaan macha allah section féminine bi xale yi añ yi tel naa pare xale yaa nga noonu di séddale añ yi mu mel ne il fait 13 douze heures quarante neuf minutes moo jot xale yu jigéen yaa ngi séddale añ yi macha allah seen liggéey rafet na ña nga bind ci seen t-shirt ya Ada Fass waaw waaw cey loolu cey bi bés nee naa